Bienvenue sur Salam Vision. كم جئتنا بتصونيف منمخة نفو العباد لوجه الله والخلف wa kam rafata manarati shariati kam axyayta sunnata xayra al urbi wal ajab wa kam rafata manarati tariqati kam saxayta fiha al wara min wirdihi ashlimi alhamdulilahi lama kunta maljaana fitii wa taalika ya mawlaaya muctasimi assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu ñoo ngi sant borom bi subhanahu wa taala ci teraanga bi mu nu defal ndax heure bii nu toog di fàttaliku nit ku baax nitu yàlla bu tëdd am na koo xam ne guddi tey mooy premier guddi bu muy fanaan ci bàmmeel kon bàyyi gi ñu fi yàlla bàyyi du sunu fulla ñi demee du seen ñàkk fay am na koo xam ne tey lu bëri ñuy ku jëm ci fanaan ci mar xëy ñu war koo defee am na koo xam ne guddi ni tey lañ ko lañ ko war a njëkk a dugal bloc war ko opéré te ña ko fay dugal amul yaakaar ci moom moom mu ñàkk yaakaar ci boppam ñuy xaar yàlla pour def madina kon jaam bu nekk sant yàlla war na di wax alhamdulilahi rabbil alamin bi nu fekkee ba noppi ndax jàpp nañ ko lu yàgg li fi fàttu ci diggante bi kenn xamul ni ngay yaakaar bokk ci hôtesse yi bokk ci cotisation yëpp ci xel mu dal rek foog ni nga fekkee kon su yàlla may ñu fekkee te tal war nañ koo sant di julli ci sayyiduna muhammad alayhi salaatu wa fii nu toog yàlla ubbi na pavillon wu mu war ko jëfi jàng amul luy jàll ci yàlla te ju jaar ci moom waykat bi dafa fa anta baabullahi ay yumri atahu min gayrika laa yadxul yàlla benn buntu la am muy Seydina Muhammad cofeel bi nit ki di am ci moom ni mu toll noonu ngay toll ci yàlla Muhammad maa xam nga ni ñi gëm yàlla kese yem ci yàlla reconnaître seen gëm ñi gëm yonent bi rek yem ci yàlla reconnaître seen gëm yonent bi ak gëm ko moom ndax moom moo wax ne qul in kuntum tuhibbuna allaha fattabi'uni yuhbibkum allah su ngeen bëggee yàlla bëgg leen leen ma man yonent bi kon liñ fi def sànq ñu bokk ko ak moom xam nga Cheikh Tidiane yal na ko yàlla fayal ala ubbee waxtaan bi Cheikh Tidiane nag imaam Sukari ji wax na ci benn téeréem ne fu nu koy waxtaanee ku tudd beneen kàddu bu dul kàddu bàkkaar la li may wax mi ngi ci téere bu ñu naan ashurbu shaafi fu nu koy waxtaanee wax lu sofaagu ci waxam bàkkaar la Cheikh Tidiane moo toll noonu ci yàlla moom yonent bi bokk benn tur ahmad la tudd yonent bi ahmad la tudd yonent yàlla bi muy def dafa ne sa yëtti min baadi ismuhu bi mu xamee ne nitu xadar nitu xëy bi la dund ak yonent bi ba xëy ko ñëw ci kaw suuf yonent bi xam ne bu Cheikh Tidiane wàccu mbindéef yi du ñu texe mu digal ko mu wàcc turam la jël ràmb ko Cheikh Tidiane mu ñëw juddu indiwaat tur yonent bi moo tax sëñ Babacar Si nee na Cheikh Tidiane doom du sëtu yonent bi doomam la yonent bi ku jur lahu sharifun xalimun aynamul ulama laqad tabanna bihi xayrul bariyati sëñ Babacar Si nee na laqad ci dëgg-dëgg tabanna doomoo bii ci Cheikh Tidiane xayru bariyati gën gi mu nekk mu yonent ci Ahmad boo ko déchiffré 53 la lay def ahad bii firi yàlla boo ko déchiffré 13 la lay jox 13 boo ko plissé ci 53 66 la lay jox mooy Allahu moo tax waykat bi li mu wax dafa am fu ko dënk maa la fil kaw bi. siwa rahman wal Mustafa wa Cheikh Sidi Ahmed Tidiane Chérif jeex na. damay ubbi de non du du waay waaw béy boobu ngay wax rek. والمصطفى ومولانا احمد التجاني Cheikh Tidiane Serigne Babacar Sy Malick nee na Cheikh Sidi Ahmed Tidiane yaa xutbu yaa xaws yaa mawlaaya yaa wadalu yaa muntaha amali billahi yaa xamaru jërëjëf du ma dagg nag nii laa mel damay bañ taataan ci li muy wax bu continuer mu doon waxtaan bi te maa ngi door ubbi nag Cheikh Tidiane foofu la toll ci yàlla moo tax attention sànq oustaz li tax ma toog muy jotaay bi jotaay bi Cheikh Tidiane la yoo xam ne duñ ko bàyyi mu jàll mukk xaj Moustapha nee na Cheikh Al Hadj Malick wax na ci xantaratu buur yi man xaala li cheikhihi lima lan yantafi lima taallama bi li tax ma ne du ma bàyyi mu jàll mbooloo la mu toog te yaakaar naa ñu ngi toog ñëpp bu mu dul taalibe Cheikh Tidiane gëm nañ ni ci seen xol bëgg na Cheikh Tidiane te Cheikh Al Hadj Abdoul Aziz Dabakh daan na wax naan bu ma teeloon xam. cofeel ci Cheikh Tidiane lii lay du ma jël tarixa bi damay sopp Cheikh ba dem àjjana waaye garanti bi nekk ci jël tarixa bi moo doy waar moo tax mag ñëpp doo ko jëf sëñ Si dañoo daje laaj ko luy gàccee Tidiane mu ne Tidiane gàcceem yow mal xiyaam mu dem àjjana moom kot sëñ Babacar Si nee na loolay gàccee Tidiane mu ne Tidiane buy dem àjjana day xool ci ku ko neex ci famille mu yóbbaale wa yadxulu jannata daal Cheikh Al Hadj Malick xaawil wirti wa waalidun wa zawjatun kal wulti Oustaz Souley lii ñuy def sànq moo gën a foor ci tariqa bi xadaratul juma parce que xadaratul juma bu ñuy aouzu billahi min asheytan rajim rek yonent bi la nu bokkal balaa wasifa mënuñ tollee ci juróom-ñaari këru jawharatul kamaal ci la mag ñi wax ne ci la yonent bi di teew xadaratul jumaa nag buñ naan auzu billahi la yonent bi di teew moo tax tarixa bi tarixa bu doy war la Cheikh Tidiane li ko li ko yonent bi doon yëpp da koo pare ne julli julli ñaari rakk moo am ak julli ñett rakk ak julli ñeent rakk mooy wasifa lazim ak xadaratul jumaa julli ñett rakk mooy lazim moom lañ pare ne timis astafurlah téeméer muy benn rakk salaatul fatiha téeméer muy ñaari rakk laa ilaha illallah téeméer muy ñett rakk ñu bëri leen ko timis fi am takkusaan ak gewe Cheikh Tidiane bëri leen ko wasifa astafurlah alazim alladi laa ilaha illa huwa alxayyul qayyum fanweer muy benn rakk salaatul fatiha juróom fukk muy ñaari rakk laa ilaha illallah téeméer muy ñetteelu rakk jawharatul kamal fukki per ak ñaar muy ñeenteelu rakk isbal dugg takkusaan dugg géwél mu des julli ñaari rakk Cheikh Tidiane def fa xadaratul jumaa fajar dugg suba dugg safaar dugg moo tax bu ñu laajee Cheikh Tidiane luy witar mu ne tarixa bi benn mboolem awraat yi ma tudd yëpp boo ko def da ngay da ngay ubbi fatiha mu jël fatiha bi jox ko muy witar ndax fatiha bu ci waawoon ak fatiha yi nit ñi jàng bokkul de alquran ci firi waa ci waawoon laa wax muy firi alquran inna allazina kafaru سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ñi jàng alquran inna lazina kafaru gaa yi weddi yàlla yi lu koy firee wante woon gëmul ko inna lazina kafaru mooy gaa yu yàlla yu topp yàlla bu yëg yàlla ba gëm ko parce que al kufru luxatan azulm baatu kufru ci arab azulm lëndëm te yàlla ne awliyaa yi taxta xabaar yi sama gaayu yàlla yi sama suufu nëbb tànk laa leen denc yàlla ne kon inna lazina kafaru waat ci waawoon ne gaayu yàlla yooyu ban topp yàlla ba yëg yàlla ñoom sawaxun alayhim anzartuhum am lam tunzirhum laa yuminuuna imaanan aksara mimma amu seen gëm dootul wàññeeku mukk biñ demee ba tollu foofu ci yàlla xadama laahu ala qulubihim ci la yàlla kaste seen xol ba dootuñu sentir lu dul yàlla wa ala samaihim dootuñu dégg lu dul yàlla wa ala absaarihim dootuñu gis lu dul yàlla maqaama googu ni mu neexee bu leen ci yàlla génnewee wala hum azabun azim wala Serigne Cheikh dafa romb benn jàkk am kuy firi alxuraan nee na moom yaakaaroon ne balaa muy yëpp këram ñu mu ne ndax kii firi alxuraan ni mu ñàkk dégg alxuraan Serigne Cheikh ko njëkk a wax mu ne iqra jàngkat yëpp ko firi yenoon ci bi Jibril da ko fekkee ci xontu bi poño ko ne ko iqra jàngal mu ne ndax yonent bi jibril mooy sëriñam yonent bi mooy sëriñu jibril te taali bi du ñëw ci sëriñam ba ne ko nag ko jàngal ñu ne sëriñ Cheikh kon école loolu firi mu ne jibril dafa ñëw téye yonent bi parce que taalibe am na droit gis kilifa mu def lu jaadu mu conseillé mu ne dafa ñëw di ko conseillé na ko jot na nag iqra sosal daar yonent bi ne ko bu ma sosee daar nan laa koy tuddee mu ne ko bis mu rafetlu gën a xalaat. ah ah dégg dégg parce que Jibril toog na fukki junni ak xamul lu tudd. doo xool caméra waay. fukki junni ak Jibril na ko xamul lu tudd. nee na bu yàlla soxlaa béykat yi day ñëw na ko béykat yi kaay bu mu ne ko Azraïl kaay Israfil mu ne ko kaay mais nee bu soxlaa Jibril yàlla day ñëw ba ci kanamam rek wax ak moom dem Jibril toog fukki junni ak xamul turam nee na lu yàlla na ko yaa Jibril jibril nee na fa ariftu ak nga ismi huwa jibril mu man naka te kon jibril laa tudd yàlla ne ko sant ma ci xamal gi mën a xamal sa tur jibril toog di sant yàlla fukki junni at parce que Muhyiddin Arabi nee na yàlla di ko sant boppam parce que xamoon na ne jaam yi dañu ñëw sant ko te sant yàlla dafa am maqaam yàlla ne comme dina ñëw di ma sant te xamuñu li may santee naa sant sama bopp ba ëllëg ku ñëw jël dugg ci sant boobu lamma alima allahu ajiza qalbihi an alqiyami bi xaqiqati alhamdi xamida nafsuhu fi ladan niyabatan anhu wa qala alhamdulilahi rabbil alamin alhamdu googu la Maodo topp ba def ko ñaar ci dundam mooy alhamdulilahi ala fadlihi ak alhamdulilahi ala niamihi alhamdulilahi ala fadlihi muy alhamdulilahi zil taysiri alhamdulilahi ala niamihi muy alhamdulilahi zil ijaadi fa la Cheikh Tidiane na xamante yonent ñu kóllërante ñoom ñaar yonent bi ne ko maa jur Cheikh Tidiane mu lutti fii moo tax yonent bi jur déedéet bi mu ñëwee ci suuf nag wàcc am xalifa bu am yitti maa ngi dugg ci waxtaan bi xalifa bu am yitti bu tudd Seydi Hadj Malick ma mu am xalifa bu am yitti bu tudd Seydi Hadj Malick sëriñu Souleymane Diop nii di alxaaji Mor Diop bu parcelle daa génne fii dem Fass ci Cheikh Tidiane toog ci raw du Cheikhuna Ahmada Tidiane Chérif di zikkar benn naar fekk ko fa gis Baye Mor Diop toog mu ñëw nuyu ko ne ko sama maam Cheikh Tidiane moo ne rawxaan bi ma ñàkk ci tarixa yow yaa ma ko war dajeeg naar bi ko ji woon dajeeg moom ji ci mbay mu jóg di tuur xéwal da ko jërëjëf damaa joteeg nit ci tarixa bi mu tëkku ma bis boobu laa gëj a gis sama roxaan ba biig man moom ñoo fanaan mu ne ko xanaa yëgoo ne sama maam Cheikh Tidiane nee na rawxaanu tarixa bi juróom-ñaari fan lay dox muy altine ba dimanche mu ne juróom-benn fan yëpp ñu ngi fanaan dëkk bu ñaan senegal ci benn as dëkk bu dëkk nekk ci biir Sénégal bu ñaan ci waawal di fanaan benn raw di juróom benn fan yëpp roxaanu tarixa bi ci alaaji Malick te li ko may Cheikh Alhaaji Malick mooy yitte alaaji Malick ñun ñii sax xamuñu ko Maodo hors série la bokkul ak ci ñii wala sëñ Mansour borom daara ji bu mu saana toog ci daara ji ba tudd alaaji Malick dama naan ah tudd ngeen bokkal de allazi laa yu daax wala yu baax له يد الدولة والغاية القصوى والملجأ والمأوى شيخ المشايخ في الإسلام والدين إن قام قام به وإن قعد قعد مع الله وإن تحرك تحرك مع الله جميع أموره إلا الله وفي الله وبالله وبالله وإلا الله كذاك ربك خيرات المنى أفتنتعي عن العدل عنها البين والسوء فرد العالم يا muy désigné kuy toog ak Seydina Muhammad mu ne ko te mag ñi dañu nañ dégg ci kaw doon xool kan moom moo war a wuutu waaye sa candidature Cheikh Al Hadj Omarul Fouti moo ko pesé ne bu ma sañoon ñu def ko Babacar Sy ndax na sa catu karaw ba sa sa catu wéer mosoo def lu suuf yàlla te mu a ko Cheikh Tidiane nangu na ko yonent bi nangu na ko su ma demee Babacar Sy yaa fi toog te li ko jiitu sëñ Babacar si xamoon na cofeelam ci Cheikh Tidiane am na lu mu doon ci Cheikh laata moom mësër way na Cheikh Tidiane à l'âge de 14 mu bind way way ko Cheikh Tidiane bay bu nekk mu barkeeloo ko ci benn atam muy 14 bayit moo jur Cheikh Sidi Mouhamadul Mansour ñett laay waxtaan ci sëñ Mansour wax leen fi mu toll ci yàlla benn rek su ma ko waxee doy na sëkk nit ñi xam ñett ñii rek ko ko def ci kaw suuf ñoo ko defagum ci ñi ma xam te ñu siiw Oustaz Diarra yonent bi moo fi juddoo altine faatu altine Cheikh moo fi juddu alxamis faatu alxamis Serigne Mansour borom daara ji juddu samedi 15 août faatu samedi bisu samedi la juddu 15 août 1925 la judd ci weeru tubaab bu fekkee ci weeru arab Serigne Mansour mi ngi juddu le 25 muharram la gane àddina 1344 te li doy waar mooy li muy dugg bàmmeel it ñaar fukki fan ak juróom-ñaar 25 muharram la dugg bàmmeel 24 muharram la gàmmu xëy ñu denc ko 25 muharram mu dugg baat benn ma ne ñetti yi ñoom la ko yàlla fi jagle juddu altine faatu altine Cheikh Tidiane juddu alxamis faatu alxamis Cheikh Mansour juddu samedi faatu samedi beneen bi Sëñ Mansour moo wax ci làmmiñu boppam ne laataa ma toog ci daal ji di jàngale Sëñ Babacar Si wax na ma sama cër góor gi Abdou Karim Ndiaye ca Mbuur ca tubaab jalaaw mu ne génn noonu guddi di dox génne raw bi sëñ bi El Hadj Malick ak sëñ Babacar bi muy génn raw bi rek ne daa am na ko sama maam wax ni dinañ daje ak moom am na ko sama sëñ El Hadj Malick wax ma ci raw bi mu koy ziara ne am na ko ñu dajeel moo koy dund ci xam-xam kër gi Abdou Karim nee na ñuy dox kenn rek la ñu dajul ci guddi gi nee na mooy Serigne Mansour borom daara ji nga xam ne dëgg dëgg doon lu xam-xam li ma amee sax naan lexmiraat nga xam ne nit ñi dañ koy comprendre moom daf ko mokkal. bil ilmi wa taalim fostum gayrakum بالعلم والتعليم فختم غيركم والبذل والإنفاق والإحسان يا سقل تواون يا مزمع البحرين يا لم الهدى فعل العزيرة نزعة الأكوان يا خرة العينين يا كم الغنى لطامعين radiyallahu taala anhu kon saxaar gi doon ma fi sang baana ci waawanu jërëjëf ñi nga makkata ñi nga may leen kër ñu dëkkee ñi way fii ci biir Tiwaawan tax jara li doy waar mooy nee naa Serigne Mansour la 15 août la la la la àddina 15 googu moo ko topp ci xilaafaam def ci xilaafa 15 ans li doy waar 87 ans la dund boo déchiffré 87 15 la def 8 plus 7 15 te attention. beneen bi mooy luy doy waar bu fekkee ci weeru arab Serigne Mansour boo déchiffré ak yi mu dund quatre-vingt-dix ans jox moo jàpp mur ko ci nguur la dund ba <laughs> ci ñett laa ko tënk loolu ci Souleymane am bi Moussa yun bi najdati xaliluy diinin sunni yun du Muhammadin ñeenti yëpp Serigne Mansour am na ci jëlaat Souleymane am nuyu incha allah Souleymane nguur gi ko yàlla joxoon ak kattan ak sañ-sañ Serigne Mansour Cheikh Al Hadj dondu ko ci Souleymane ci sëñ Mansour la rogalaat di nga gis ci moom sañ-sañu xilaafa. gis ci moom sañ-sañu xam-xam gis ci moom sañ-sañu tedd nga gis ci moom sañ-sañu doomi soxna wala bi mu président wàccee ñuy audité naan nañ xool ñu ñu joxoon oto pour ñu delloo si ko ndaw li ñu yóbbuloon ci seen moom soo seen moom soo def na ko ah fii nag oto yi nag moom ci tool yi la waaw man nag alal gi nag alalu tool laa am yab waruma fi alalu kenn ndax baaba ko si bàyyi beneen bi nee na sëñ Babacar Sy def dugal na ma ci baytu xalwa ba mu ruy ci ba sëñ Mansour nee na mboolem koy taalibeem te mu reconnaître la nee na ci loo nekk yëg na ko te gis na ko bis dafa jot benn waaye ñëw ci moom ak si toog sëñ Mansour jékki-jékki na ko diw kaay weere ngi ñuy dox ci benn sëy te yaay wax ci xale bu jigéen bi bañal bàyyi ko bu ko defati waaye ñu ne ko mukk mosuma ko def sëñ Mansour ne ko dog nga ci tarifa yaa ko def démb rek maa ngi gis ba toog na ko bañal te ñoom ñaar seen roxaan ànd na bàyyi leen di sëy mun ko billaahi maa ko def yeesal nga xam ne daan na wax naan ñeent moom sëñ Babacar Sy ma ko ne jigéen gu mën a am mënta am doom mu dem mën na koo bañ am waaye bu jàkkaaroo moom loolu nag moom Babacar ma ko defal muy benn nga xam ne defal na ko nit ba tàyyi bëri na turandoo yi sëriñ Mansour am ci àll bi li ko ko may mooy nit ku dem ba ñàkk espoir gisee ak moom sëriñ Mansour na la demal di nga am doom nga dem am doom jël tur nga jox ko sëriñ Mansour ah jom mi nga nag hôpital hôpital nga dem fa sëriñ ñëw sëriñ nga dem fa nga ñëw ci nit bindul joxu la joxu la nga takk joxu la nga naan ne la demal sa aadi faju nga dem aadi foofu faju Moussa Ba koo tur bi ah dafa am koo xam ne ñu ne ñoom bokkuñu tarixa soxnaam tollu diggante médecin yi nen ko xale bi mënut a génn te opéré moo fi te buñ ko opéré mën naa ñàkk bakkan dañ la koy teel a te moo fi parce que xale bi dafa laqatu ci biiru ndeyam mu ne soxnaam moo ko yoon ni ne ko demal indil ma sama carte coscas nga jox ma ko nee mu dem jëlil soxnaam carte coscas am jox ko soxna si jël carte bi xool ko tawasul ci sëñ Babacar Si naan kaas mu ne am na doom te doom ji kenn laalu ko ba mu am doom mucc ci ñu xëy bisu tudd ba mbokkoom taalibeem yëpp dalee naan xam naa sëriñ diw la ko tuddee mu woo imam ba mu ñëw mu ne ko tuddal ma ko Babacar Sy mbokk taalibeem yëpp jug taxaw meew ni nga mel ci ñun nangam am doom ko tuddee nangam diw diw nga bàyyi ko fa tuddee ko Babacar Sy te yow boo ko tarixa sax sa soxna mu ne leen fi Babacar Sy jaarat kon ku ko jaaral ba tuddee ko soxna sa jara nee na nee na dafa am ñaari waay <laughs> nekk ay ñu nekk ay xarit. ñu nekk ay comme ni nga koy expliquer comme ni ma koy expliquer nii. jabar ji day yaratal. jabar ji day yaratal. saa yu jabar ji ëmbee rek. saa ji ëmbee rek. ba ngénte rek. ba ngénte doom ji dee. mu ne ko tee nga yéene ci sa xol. mu ne ko tee nga yéene ci sa xol. soo amatee doom bu góor. soo nga tuddee ko Serigne Mansour. nga mu ne ko boroom sañse bi. mu ne ko borom sañse bi. mu ne ko waaw. ko sama xol daal. mu ne ko sama xol daal. mayu ma may tëb tëb rek. mayu ko may tëb tëb rek. di jël sëriñ Mansour. di jël sëriñ Mansour. mi nga xam si kumaam moom ne si kumaam moom dara. di ko tuddee sama doom. comme yow sama xarit la. mu ne waaye comme yow sama xarit la. te mënu ma laa bañal dara. te mënu ma laa bañal dara. da ngay ñëw ñu gas ñetti pax. da ngay ñëw ñu gas ñetti pax. benn baayam benn baayam benn sëriñam benn sëriñam benn sëriñ Muusu suñu sànnee xeer yi suñu sànnee xeer pax bu mu dugg pax bu mu dugg ñu gëmm rek tuddee ko mu sànni mu dugg ci paxu sëriñ Muusu mu génnewaat mu sànniwaat mu duggaat ci pax ma mu génnee mu sànniwaat mu duggaat ci pax ma mooy bayit ba ñu jàng ci xilaas min baadi darbin salaat kaana naaxiwa jabar ji wasin mu ne jabar ji wasin ñu tuddee ko sëriñ Mansour bu daara ji xale bi deewul ba am ñaari at xarit bi ne ko fekk doom ji day jooy naan kan mooy sama turandoo bi ne te noo dem Tiwaawan ñu yóbbu ko ci turandoo mu ñëw tombeek mara bi tëju woon bay dóoru ubbi ñun ñi dëkkoon ci kër mara bu rek ngay dégg mara bu tëju a tijj waa ji xool xëy ba sëriñ Mansour ne ko sëriñ Mansour mu ne ko noppil mu ne ko noppil tuddee woo ma doom tuddee woo ma doom pax mee ma tuddee doom ana moom sur ma sa pax ma indil ma ko fii am na turandoo te may ma allahu akbar ah الرحمن الرحيم ñaanal ku mënta am doom muy benn mu ne sëñ Babacar Si ko daal mu ne ñaareel bi mooy faj ku wérul dof sëñ Mansour nee na ak fu mu mën a dofee mën naa ko faj lii may wax man maa ci am firnde ndax maa gis waa bi ñuy jàng ci école imam Ndoye dafa am ku fa wiiriti woon yaayam ñëw ci imam Ndoye wax ko ne ko naa ko fu ne mënta wér imaam Ndoye ne ko su ma sañoon nga wër ba wax fi bañ wax la fi sëriñ Mansour nekk ma yóbbu ko fa nee na mu muy wër fu fu mu jaar ñu ne ko sëriñ Mansour jaaral na sëriñ Mansour bu daan tukki la Oustaz Diarra xam na loolu da ngay naan di naan Oustaz sëriñ Mansour a ngi fii nga ñëw di jaar ne la génn léegi ma ngi doon di dem noonu lay tukkee moom nee na muy muy di wër mu dem ñu ne ko mi ngi jag saaw mu ànd ak xale bi jag saaw ñu agsi ñu ne ko xombal lay fanaan mu nee mu toppaat yoon ñu xëy fa ñu tëdd ñëw xombal fanaan fa xëy fajar toog di xaar nee na ñu jékki-jékki mbar bu ubbi am daale bu ko doon ziar si mais bi nee na mu dugg ànd ak xale bi toog ak ñaari rakam ñu ko téye nee na pour wax la xëy sëñ mën soon kas foofu rëy nee na ñu dugg seet mu ne ana ki jógee mbal kaay mère nee na ma rek toog parce que xaw ma ne war man la war a xam nee na mu ne ana ki fi am na xale bu wér di laax te jógee mbal na ñëw ma ne kooku moom man la ko nee na ma jug xuus ci mbooloo ñu téye xale bi mu ne bàyyi leen ko nee ñu bàyyi xale bi muy dox di dox di dox ba xale bi agsi sëñ Mansour jël loxoom pare ci xale bi waxatul nee jël ci boppam di waxtaan di dóor xale bi rek di expliqué sama maam ne dóor nee na ba nu ba pare ba waxtaan ba pare mu ne mère bi kaay jëlal ma yóbbu jinne ñu ko jàppoon sama loxo la doon xaar lii la ci fii may wax ak yéen waa xam naa ko am na doom tuddee ko Serigne Mansour te njabootu Cheikh Al Khadim la te mi ngi ñetti jabar fi ne wax naa ko dégg fi ne ko yitteem tolloon na foofu mu ne sëñ Babacar Seck ko defal mu ne ñetteel bi fekk nit ku kenn xamul fay nee na ma taal nit maa ko ëpp ñëpp ah yàlla ko nee na fekk kuñ kenn xamul sëñ Mansour nee na ma xëy mu neex ma ma taal ko nee na du dara ci ma bàyyi daal ñoom Mansour nee na bi ko sëñ Mansour naan ko yëpp yaa koy moom nee na ko woon benn nga xam ni. li ko ko mayoon si Mansour daan na toog ci ci ci basangul jàngale nee na ba mu mas bu paree du yëg amoon na sëriñ du tànk parce que nee na day dem ba deret bu way ba du mën a tàllal tànk te benn jotaay lay toog ngir ormale ko àllaaji añ beeg réer beeg ndékki bi yëpp. añ beeg réer beeg ndékki bi yëpp fa la koy fekk sëñ Mansour nee na mosul ndékki gën sëriñ Abdoul Aziz Al Amin déglu naa ci benn waxtaanam mu ne sëriñ Mansour bokk na ci kilifa yi yu mujjee tukki génn senegal tukki. nee na nax daara rek. ci tukki libi la jëkk dem. mu ne ci tukki libi la bëgg a dem sëñ Babacar Sy dafa xëy bis moo ñëpp ñu toog Serigne Cheikh toog mu ne leen ku nekk jox naa la cër waaye cëru daara nag bon suuru ko am. la. <laughs> bi muy dem libi. moom daal daal muy dem libi. ci xadaaf. ci xadaaf. sëñ Abdou nee na daa yëg ci avion bi. sëñ na dañoo yëg ci avion bi. bi di naaw ba mu ba ci yàgg. sëñ Mansour ne ko Abdou Aziz. ubbil ma fenêtre bi ma mu ne ko fii kenn du fi xool. nga xam ne xaw da daawul jug sëñ sëñ Abdou nee na bokk na ci kilifa yu mujj a jug euh, Amathane nee na dafa mos a fekkee benn jotaay nee na sëñ Mansour di àgg bi naka ne benn waaye bii lu ko si dafa toog nee sëñ Mansour ne àlleelu bi nga am du sànni bi sëñ Mansour téye bi sànni wax ne big laa wax. nee na mu yéem ñëpp mais nee na li leen jaaxal mooy sëñ Mansour bi mu sànnee bi kenn xamatul fi bi daal. nee na ñooy abante bi joxaat ko birim bi suñ mën sona waaw këy big laa wax big baa ngi ni door a egsi naka te waa ji luxus ba nga ca ginnaaw jékki-jékki jug na ñu ko jug dama doon xool ndax yaay xalifa Cheikh Tidiane wala duma xalifa Cheikh Tidiane mu ne ko sa te lu doy waar ci xasida bi ko alaaji bi bind wax naa ko bii kii mi ngi toog ma ne leen benn sëñ Mansour moo toog ci xilaafa ki ne xilaafa Cheikh toog na ñu rocc sirru bi ci moom jox ko sëñ Mansour trois jours alaaji bi sëñ bi nekk ci alxamis bi nu koy wóolu sa alajab bi di koy jébbal yëf di ko ko jox dafa ne ko sirral xilaafati mawrid sam at jël sirru xilaafa jox alxamis laa wax ajjuma samedi dimanche alajab bi door jox trois jours sëriñ mën soos doxal sirru Cheikh Tidiane ah yëg nga ni sëriñ waxtaan wi neex na rek fi mu ne nii suñu liggéey rek. bi bi ñu yore bi mu yore xilaafa gi. nee na bi mu yore xilaafa gi. lañu fëgg buntu këram. lañu fëgg buntu këram. mais sëñ Mansour. mu ne waaye sëñ Mansour. bi fi El Hadj Abdou di nekk. bi fi El Hadj Abdou di nekk. di xalif général di di xalif général di Tidjane. la këram daan fees la këram daan fees dëgg la. seen xilaafa dañ koo associé. xilaafa dañ koo associé. moo tax secret bi la ko El Hadj jox sirral xilaafa te la ko El Hadj jox alxamis ajjuma samedi dimanche góor bi door a toog soxna Sophie si mu ngi dëkk fii ci Talimani li wax yëpp day am dalil war ngeen koo xam chrétien na jëkkëru chrétien la amoon sëy ba dematul soxna Sophie si ne dafa bëgg a dugg ci lislaam ne Alaaji Abdul Aziz Dabakh la bëgg mu tuubal ko en 97 nee na bi mu jàppee pour tuub ne dimanche bii di ñëw dinaa dem ci waaw fexe du gisante Alaaji ndax man Alaaji du ma tuubalul du ma doon julli ndax alaajab doo tax ma bëgg nekk julli Abdoulaye Ndiaye ñii xam nañ suuf si sëñ Mansour ko tuddee dinaa wax li tax mu waral pour wax la kat fa sëñ Mansour dimanche bi soxna si jàpp pour dem tuub dugg ci lislaam dimanche boobu la alaajab du faat mu ne moom dootul nekk doo dootul nekk julli pare na ci parce que amuru julli alaajab doo taxaw mu nekk nee na dimanche la alaajab du faatu altine talaata àllarba alaajab du feeñu ko ci nelaw ci chrétien ne ko boole naa la ak Serigne Mansour nee na mu gént ko àllarba alxamis aljuma ñetti fan mu jagle ko di ko gént nee na yëf yi yëm ko mu am kum ko wax mu la ko kooku moo du remplacé Alaaji Abdu mooy xalifa Tijaan nee na mu dem ci waxoon jara ni Seydala Serigne Mansour bi mu nekkee doon na nekk xilaafa toog tëju na tëju bu yàgg kenn gisu nee na mu ñëw toog ci waawoon mu nekk fa ñu utal ko fa dégg mu toog toog toog ba bis bi Serigne Mansour di génn di ko denc nga xam ne dund gi mu dund bi loolu ci la bokk nee na bi mu toogee ci saal bi sëñ Mansour nee na mu toog ñu ne ko am na ko la doon te dafay yàgg lool sëñ Mansour ne bàyyi nañ mu àgg nee na bi mu ne tëll ci mbooloo ma di toog di ko ci sëñ Mansour sëñ Mansour ne ko waaw kay kaay alaajab doonu boole. biig rek wax na moom soxna su fi nee na muy lox ci jotaay bi ndax li ko ne li ko sëñ Mansour ko alaaji duñu boole nee na mu àgg si toog ci kanamu Cheikh Seydi Mouhamadou Mansour borom daara ji nee na fii sama wet mu toog nee na mu tuubal ko ci jotaay bi yëkkati xaalis bu bëri jox ko na ko tuddee naa la Sufiyatu mu ne ko ëllëg yowmal xiyaam nii may layelee sama njaboot. ci kanamu yàlla ba garanti leen noonu laa la garanti ci kanamu yàlla soxna Safiya nee na ma ne na ko jug nee na génn di laajte ci biti kan mooy Safiya parce que moom nee na bi muy tuub dafa bëggoon bu demee ci Alaaji Abdu wax Alaaji Abdu ko damaa bëgg tuub dugg ci islam ba tuddee ma sa yaay nee na te wax ko seen Mansuur nee na Sëriñ Mansuur borom daal bi tuubal ko ci jotaay mu génn laajte ne man tur bi ma tuddee tur la ñu ne ko yaayu Alaaji Abdu nee na mu xam ne alaaja doo ko boole ak Serigne Mansour borom daara ji attention secret nekkaat ci bëyit bi alaaja di way Serigne Mansour bi mu koy def na ko bushraakumu Mansour qad wulitumu sirral xilaafati mawlida zamani bushraakumu boobu alaaja di mi ngi xamal Serigne Mansour sa dund gi bu demee bay jeexee ci mbégte lay jeexee Bachir jullee ko bushraakumu Mansour qad wulitumu alaaja bi naka ca da ko doon dundaale da ko sa dund gi yëpp mbégte lay doon ba mu dugg bàmmeel bi muy faatu Cerno Bachir boo ko jullee Bachir mbégte dellu nga xam ne kéemtaanam bi am ci dundam moo feeñ ci faafam Serigne Abdoul Aziz Al Amin nee ba ci médecin bi tiimoo bi mujjee tuum Serigne Mansour daal dugg ci lislaam ndax nee na musul tiim nit kuy faatu ku mel ni Cheikh ko ci lislaam nga xam ne keroog Serigne Abdoul Aziz Al Amin nee na pour wax la kashfu Serigne Serigne Mansour bi ñu ko nee dañ ko yóbbu nee na daal di hôpital ndax su ma sañoon ma toog bul dem. mënu ko lu tax mënu ko xalifa Cheikh Tidiane te kenn wóorulaat ci mënu ko waaye fi ma nekk Babacar Si xamal na ma ne bu ma demee su may dellu si leneen laay dellu si te faaw xam na mu dem mu ne demam boobu bi muy dem sëñ sëñ Mansour borom xamoon na ne buy si leneen lay loolu mooy moo gën tuut ci ay mayu Cheikh Sidi Ahmed Tidiane Chérif li muy balance bi te bi mu fiy nekk nag xalifa la boo xam ne xutbul xaam xëy na daan la wax naan ñett yi moom bu ko gën a iñaane nee na buñ nee bindee lettre bind ci alaaji mu ne ñaar lañ ko jox alaaji Cheikh Alhaji Oumar Fouti wala Cheikh Alhaji Mak Sama mu ne waaye buñ ci bindee xalifa loo soxal soxal indi ko ci wàllu jox ko sama bay si baabu mu ne daara ji nag nag nag nag buñ ko bindee nag nag nee na loo ma soxalee soxalee indil ma ko ndax daara <laughs> ah? <laughs> doy na la mu ne daara rek doy na ndam ci li Serigne Mansour dund entre diggante ak Cheikh Serigne Babacar Sy te attention mu mu tundaat ci diggante boobu boo xam ne ku ci stable rek jàmbaar bi diggante Serigne Cheikh Serigne Abdou ak moom nga xam ne Serigne Abdou nee na Serigne Mansour ci moom laa gëmee ne doomu bàyyi esprit la mu ne ci Serigne Mansour la ko gëmee neen Serigne Mansour mosul xoolee Serigne Abdou ne bàyyi la ma bokk mu ne Durkheim nee na pour wax la fiixu Serigne Mansour nee na xëy na burdu jot Serigne Abdou toog ci jàkk ñuy burdu rek ñu tàmbali nee na gisul Durkheim gisul Serigne Mansour nee na mu ne xëy na góor gi day tàmm préparé na ñoo ñu commencé burdu naka de boobu Serigne Mansour a toog ci néegam Durkheim nee woo ko nee na mënu ko ñeenti ko ñu nekk bi fu nekk taxaw na xam ne jàngal ma falaabu dóor nee na ba ma taxawee ci koñ bi jàng falaabu di boobu jamono demal fekk nee na mu toog ne le jàng falaa budda ba mu jeex ne si mu sono ko demal côté bee nee na ma jàngaat côté bee jàngaat côté nee nee na ñeenteelu côté bee sëñ bi ubbi na ko mais mën soo fekk sëñ Mansour nga feru balaa ci lan la di ni mu amee woon xam ak ko ak fiix bi mënu ko mais yow yow la nit ñi di xaar ci na ma ba doom mënu ko takk ko dama xam kon bu rëggee ma bare sëñ Abdou na ko mais yow Badaloo mi ngi woon ak benn kaas boo xam ne. Badaloo mi ngi woon ak benn kaas boo xam ne. lu ci dugg lu ci dugg. raw na raw mu dem ci ay kilifaam. mu dem ci ñu ne ko tee koo bàyyi yàlla. ñu ne ko tee nga koo bàyyi yàlla. mu ne téeméeri nag. fekk waa wër na ba sonn. ñetti pël ñëw. ñu ko fay ñu. ñu wax la ku jël say ñu yóbbu la ba fu ne. ñu fay leen. bi mu leen fayee ñaar ñi daw kenn ki taxaw ne ko badaa mu dem wax ko police mu dem wax ko police waa police ne ñun de wax dëgg yàlla foofu moom mënuñu faa couvrir ndax suñu élément yi doyul am ku ne ko tey ngaa seeti sëriñ Mansour mu ñëw Tiwaawan fekk fa maram fekk ko fa mu fekk ko xombal gis nga bi mu ñëwee. morobu dafa génn. morobu dafa génn. da ko bàcc. da ko xewati. lu xewati. mu ne ko diw. mu ne ko diw. moo jël sama téeméeri nag. ci moom dara. kenn ci moom dara. sëñ Mansour ne nii loxo bi. sëñ Mansour ne nii loxo bi. téeku téeku. ko yëngal ko. yëngal ko ñeme nga. ñeme nga. ñeme nga. ñeme nga. mu ne ko soo demee. mu ne ko loxo. jox ko loxo. téye ci loxo ci loxo. laaj ko say nag laaj ko say nag. door a génne door a mu dem. mu police yi. woo police yi. ne leen kaaleen gunge ñu ne ko amuñu oto. mu ne leen ñëw leen. ma jox leen sama oto. ñu dem ñu dem. bi ñu demee ne ko Badaloo am na ku lay seet. mu ne kan moom moo war a déranger kër bi. rek mu génn. bàcc na ko jàpp ne ko samay nag dafa riir topp naa ko ba ñu ne ma ko ba ñu ne ma mi ngi nii ci sa kër damaa bëgg nga jox ma samay nag mu ne ko wóor na la mu ne ko wóor na la mu ne ko wóor na ma mu ne ko nañ dem mu ne ko nañ dem mu ne ko xoolal say marque mu ne ko xoolal say marque góor gi naan bii la gi naan bii la bii la bii la bii la ba mat 97 ba mat 97 mu manqué 3 badaloo ne ko nag yi nga doon jaay. badaloo ne ko nag yi nga doon jaay. ci lan lay toll. ci lan lay toll. mu ne ko nag bu nekk. dina jar téeméeri junni. mu jël 500000. mu jël 500000. jox ko jox ko. ni ko falaa mën a yem. bàcc dellu si waat. bàcc dellu si ñëw ci Cheikh Sidi Mouhamadul Mansour ñëw ci Cheikh Sidi Mouhamadul Mansour mu ne ko mu ne ko an say nag mu ne ko an say jot naa ci mu ne ko waaye manqué na ñaar waaye manqué na ñaar mu ne ko karaw mu ne su ko ci lekkee su ko ci lekkee at mi at mi du ko ci fekk du ko ci fekk at moomu la bëriloo gënal at moomu la bëriloo gënal waaw xam nga xam nga ci kër taanam am na kër fii ci ci waawal ñëw di xool si kër gi Sëriñ Mansour ñëw di xool si kër gi fekk fa gardien fekk fa gardien mu laaj ci ana gardien bi ñu ko xaar ñu wëri ko te Mansour taxaw taxawaay bi xaw a yàgg rek xaar si nee na ñu ñëw ba ci bunt bi sëñ Mansour ci jël baaraamu bu ndaw bi teg ko ci kànnaar bi ne kànnaar man la Mansour ubbeekul nee na bunt bi nag kànnaar gën a kàcc xar ci bi bunt bi ubbeeku sëñ Mansour dugg sëñ Habib nee na doon te keroog sama papa jur waaye am naa lu ma nee ñu ñibbisi nee na mu mu bëgg ci waxtaan ba Pawla ko bu ma laaj mu ne ko Babacar Si defal na ma ñaan bu tawoon na su ma ko ñaanee yàlla na ma ñaan bu tawoon na ma sëñ Mansour na ko bu yàlla yàlla na yéen bi sëñ Mansour yéen it waay waaw kay sëñ Mansour daan na wax ni ku ñuy yëngal Oustaz Sidi bari bu defee maa ngi jéggalu bu baax mënoon naa gën a baax mënoon naa gën a neex waaye léegi man li may wax ci détail rek ci expliquer laa toll bu ñëpp comprendre rek ma daaneel yàlla na nu ko yàlla fayal waaye nag laa xarwa laa xarwa de ku Babacar Sy jur noo mel jomb ah ma ne laa ku Babacar Si jur noo mel jox la ah ba pare taxawaay yi Serigne Mansour taxawaayam Alaaji Souley bi ñu caricaturé yonent bi gis ñu ku wax mu jug jël position xeex ko ngir yëg gi mu doon yëg ne du xalifa Cheikh Kassé mais xalifa yonent bi ci kaw suuf ah Moussa Ba tegal tuuti ma barkee lu ci ci ci bindam non bii bind na rek moom bii la ko jaayee فقد يداكم أيها الغربة التي Abdou Aziz xaar ma barkeelu ñaari béy def ñaar sang ma barkeelu ñaari tey la àjjuma ñuy waxtaanee nitu yàlla di seet Sidi Mouhamadul Mansour ca mbaaxam nga yiwam nga tëdd nga yàlla na kenn ku nekk jox sa loxo morom mu jox la loxo nga ne ko félicitation bu déwén. alaaji jaw félicitation. félicitation. la